woote bi dañu dëgmal benn événement bu mag El Hadj Keita war a dem Grand Théâtre ànd ceeg waa Médina ak képp ku koy bégee rek looloo ñu tey ñu woote bu waxtaanee ko xool fa ñu jëm naka lañ fay demee. dañ ko doon def chaque at vingt 24 décembre mais ci sis bi lañ ko daan defee bi ba fan si nag ñoo ko laaj ne dañu war a dem Grand Théâtre mu jot. yàlla yóbbu ñu ci am tey nag ren artiste bi décidé ne moom dootul dem fenn fu dul grand théâtre ñu ànd ceeg waa Medina bi yëpp di dem u ñu génnee waa Medina di woo waa Dakar di woo nag waa Sénégal ñëpp élage élage ñëpp la waaw parce que moom moo bindoon noonu moom mooy Baye Fallou musique bi mooy Neymar comme ni ko waxee ñëpp ko bëgg tey ku nekk bëggoon nga mu nekk sa équipe ak lu ñu mën ti wax rek moom borom baax la te lu baax rek lay am am nañ ci yaakaar ne sénégalais dañ ko ñëw wuyu affaire bi ko nit ñi déggee rek ku nekk ko jël def ko yefu boppam mais loolu doyul ñun ñu ngi ciy góorgóorlu moom mu ngi ciy góorgóorlu te moom moo ñu ko gën a bëgg mais ñun tam duñ ko bàyyi ak moom dina xam na ne bu gestoo ñu ngi ci ginnaawam. am na lu ñu commencé woon waxtaan sunu biir déggoo parce que dañ ne avant ngay dem ci penc bi da ngeen di waxtaan seen biir waxtaan nañ tey moom lañ bëgg a indil ñeneen ñi nga xam ne ñoo leen jiite tey nag dañ bëgg a waxtaanee carrément ni ñuy doxee maanaam fi ñu jëm ak fi ñuy bëgg a yóbbu avènement grand ku ne dem na fa. mais tey dañ fa bëgg a dem deminu boo xam ne dina wuteeg demin yi ci mu ci lu baax rek nag ah, ci way rek lay yem mais bëgguñu mu doon rek élage bu ñëw def spectacle bëgg nañ ñu xam ne am na doole fan si bu nekk ci moom lu yombul am na gox te goxam bi duñ ko bàyyi kenn du des incha allah. maanaam ñu def loo xam ne ku jug di demati Grand Théâtre da ngay woo élage Keita tàggu ko.